nag dañu jël lu mat 29 daanaka ci ay jigéen yu fi nekkoon di liggéeyak ñun nekk ci amical bi sosoon amical bi yor ko moom doon ko toxal ah ñu dem retraite war nañ leen sag sigil sargal leen moo tax tey ñu woo leen boole ci dañ leen di sargal jox leen ay ay ay ay cadeau wan leen ne tamit ci ngeen bokk feet bi yëpp feetoog ñoom ba ngoon jot ñu daal di teqali koo ñibbi poste bi nag nee naa leen ñun jigéen ñi ah bokk nañ ci ñi nga xam ne dañuy taxaw rek di xeex pour poste bi jëm kanam la preuve boo xoolee direction commerciale marketing ay commercial nga xam ne mooy génne euh, jumtuwaay produit yi poste am di ko wane jigéen ñaa fa ëpp ñoo ko yor di ko wane ci biti di jaay sunuy produit di ko génne te it ci décision yi centre kii de décision yi am nañ ci ay jigéen yi nga xam ne directeur général bi fal na ko lu direction du contrôle de gestion jigen na ko yor actuellement ci poste bi kon nga xam ñun poste bi jigen ñi dañu taxaw rek takku pour liggéey poste bi mu jëm kanam te inshallah allah dinañ jëm kanam. dinañu dem inshallah allah Saint-Louis ci cadre bi lépp ci cadre journée de la femme bi dinañ dem Saint-Louis fekk wa Saint-Louis waa Louga yëpp ñu nekk ak ñom waxtaan ci lu melni tamit ci corona bi ci fièvre bi jóge fa it dinañ dem Mbour. dem tamit waxtaan ba tey ci corona bi te ak yi nga xam ne moo ci nekk.